di jottali sama siyaare ak siyaare mboolem taalibe yi sëriñ Tuubaa yi nekk ndakaaru yépp di ko jël di ko teg ci loxo cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadr mi nga xam ni mooy porte-parole xalif général de Mourides cheikh Mountakha Mbacké ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Serigne Touba mu jël ziyaaram boobu teg ko ci loxo cheikh Mouhamadul Fadal mu yóbbul ñu ko ci sëñ muntaxa ak njabootu sëriñ Touba gépp di nuyu mbooleem njabootuk sëriñ bi fi tooy di leen dalal jàmm di leen jottali siyaaru taalibe yépp di nuyu ci ndigalu sëriñ bi ndaxte tey Cheikh Mouhamadoul Bachir moo ma jox ndigalu wax bu ma ko joxul woon booleen ma joxe parole sax dinaa ko delloo ndax booy wax ci kàddu nit mu ñëw faf toog yow daanaka amatooy wax te moom moo yor kàddu sëriñ bi yor kàddu murit yi sëriñ bi woo ma boole ma ak moom ni ma nang ko gunge ànd ak moom ñëw ci cérémonie bi nga xam ni dañ ciy màggal ku tedd ki ak jëfam ju réy ji mu jëfoon ci biir géej gi mu jox ma ndigal nag ni ma naa ci sànni ay kàddu jëmale ko ci mu taalibe murit yi may nuyu tamit bu baax di sargal délégation officielle gouvernementale bi nga xam ni suñu xarit Abdoulaye Diouf Sarr ministre maire de Yoff moo ko jiite ànd ak Mame Thierno ministre de l'environnement ànd ak Amadou Ndene sàll waaye seen xarit seen mag seen doyen di suñu xarit suñu doomu ndey di tamit suñu mbokku taalibe alaaji mbay njaay ñépp xam nañ ni fu mu nekk ki leen yebal muy président Macky Sall fu mbay njaay nekk ñépp xam nañ ni Macky Sall la fa nekkal ñoo ngi leen di nuyu nag bu baax di leen yóbbante nuyoo ci boroom réew mi muy le président Macky Sall ni ko ñoo ngi koy nuyu fa nuyu gën a di ko gërëm di ko sant ci taxaw bi nga xam ni taxaw na ko suñu mbokk yi nga xam ni ñoo taxawal bés bi muy fàttaliku julli géej gi suñu yaakaar julli woon ci biir géej gi di leen ñaanal yàlla di leen tatagal di leen wax ni gis nañu lépp yal na leen yàlla fay yal na leen Serigne Touba fay di nuyu délégation yi fi ñëw yépp muy kilifa aada ak kilifa diine ma ci seppi kenn di teg nuyoo bi ci loxoom mu joxal ma ko ñépp mooy suma xarit sama doomu ndey la président Pape Diop di beral loxo na nuyoo nag waaye nuyoo gi du doon nuyoo félicitation lay doon mu nekk mention spéciale bu ñuy defal suñu mbokk taalibe bi ñuy wax alaji maxtaar Diouf mook jàmbaar ji nga xam ni mooy aja soodoxuma ak seen équipe bi ñu àndal taxawal lu mel nii defal ko Serigne Touba bi ñuy ñëw Cheikh Mamadou Bachir ci yar geeg bi ca rond bu njëkk ba la wàcc fa la jullee fa la jullee waaye mbooloo mi ñu gis fii ak xataay bi nangeen ngeen jàpp ni day gën a xat boo leen woote woon ci biir géej gi taalibe yi fekk leen ci kon ñun ñépp dinañ xuus ñaari mbirey maanaam ñun ñépp ñu lab wala ñu dox ci géej gi dem wuy si leen ndax suñu sëriñ defoon na ko day gën a xat ndax lu yàgg dëgg la jàkkay géej ci kenn rek lañ ko miine muy Serigne Touba moom rek am jàkk ci biir géej wàcc ci julli ci dellu ci gaal gi nga xam ni moo ko doon yóbbu Gabon kon ñun damay faral di wax ni li ñu am kenn amu ko kon war nañoo def lu kenn deful yàlla kim ñu booleel tànnal ñu ko muy sëriñ Touba amul ci ñu jëkk ñi du am ci ñu mujj ñi waaye nag suñu muur la buñ ko xamul it ñun la ko yàlla muurloo muy suñu muur ñun taalibey Serigne Touba yi sëñ Fallou yaag Cheikh Mouhamadoul Bachir seen mbokk yu baax yi ngeen toogal foofu seen maam Cheikhul Khadim moo lewatal réew mi sëñ Touba réew mi moo gën a tuuti ci àddina Sénégal dëkk bu ndaw la population bu tuuti la waaye sëriñ Touba jëlele naa Sénégal mais àddina bi yëpp sëriñ sëñ Touba ko lewatal ndekoon waxtaan wi gën a yaatu waaye ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni fee nga xam ni mooy masalikul jinaan Cheikh Mouhamad Bachir dina fa ñëw ginnaaw suba ndax ku ne xam na ni bésu tey bii la ñu jàppoon bëggoon ko inauguré Cheikh Mouhamadul Muntaqa bëgg mu nekk bés boo xam ni benn bésub Serigne Touba la dafa ni dafa bëgg ñu def ko kendal kenn kendal loo xam ni dañ koy tàmmali di ko def di ko def di ko def ba mu soob sëriñ Touba ñu ubbil ko jumaam ji nga xam ne amul fenn nga xam ni doomam yu baax yi ñoo ko naaloon jox ko seen sëtam yu baax yi ñu eggale ko ba indi ko fii ba tey ji jii Cheikh Mouhamadoul Mountakha def ci loo xam ne lii ay koppar yu bare bari bëgguñu ñu bàyyi ba lépp rigal mu ñëw ndakaaru gane suñu ubbil ñu jumaa ji àndak ak ñun di sant Serigne Touba ba suñu xol sedd kon ñoo ngi gërëm ñépp di sant ñépp di leen gën a ñaax ci liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba rek a jara liggéeyal ndaxte koo xam ne li mu la manal ndey manalu la ko bàyyi manalu la ko manaloo ko sa bopp kooku danga ko war a di guddil di bëccëgal di ko saa boo noyee